nous avons constaté que les discussions avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est de la farce. Les négociations ne se sont pas menées correctement. Que se passe-t-il On vient, on nous divertit et on verse dans le phénoménal. On invite la presse, on dit qu'on a organisé ceci, on a organisé cela, alors que les questions essentielles ne sont pas posées aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale. C'est quelque chose que nous décrions. Il faut qu'on ouvre des négociations sérieuses sur la question de l'alignement de l'indemnité de logement. C'est cette question qui nous tient à cœur. Oui, ce mouvement d'humain, l'argent euh, largement les enseignants, c'est eux-mêmes qui veulent aller en, grève. Les syndicats, s'ils vont en grève, ils le font parce qu'ils respectent la volonté des enseignants. S'ils ne vont pas en grève, mais c'est sûr et certain que les enseignants sont prêts à se battre parce qu'ils souffrent. Les enseignants sont en difficulté. Les enseignants sont martyrisés, humiliés. Partout. On ne peut pas accepter maintenant que cette situation continue. C'est pourquoi le QSEMS e est en train de, qui est en train de se battre est suivi partout dans le territoire national et départemental. Voilà, ci walu xex bi tay ji euh xawma état bi xam nako wala xamuko mais jangale kat yi ci sen bop ñoo soxla xex ndax dañoo sot dañoo torox jangale kat yi humilier nañ leen ci seeni famille en coupant leur salaire jàngalekat yi toroxal nañ leen ci seen wàlli acte acte boo xamee avance man jàngal naa ay élèves yu bari yoo xamante ne nii dem naa à moment dem nañu ba raw ma pourquoi parce que am na fonction publique blocage bu fa am boo xamante ne nii enseignants yi mënuñoo avancer comme cela se doit mooy tolluwaayu xeex bi mooy véritablement respecté nañu mot d'ordre ki sems bi de long en large te ñu ngi ciy gërëm jàngalekat yëpp yi nekk ci département bi état bi respecté wuñu donc il faut que état du Sénégal arrête ponction yi muy def ci salaire yi non seulement da ko arrêter, mais dafa war a fay lépp loo xamante ni dagg nañ ko ci salaire euh, les yi ndax jàngalekat yi laay waxal mais fonctionnaires yi yëpp li ñu salaire dañ leen ko war a alors ñun ñuy exiger DMC boobu nga que Macky Sall da gelé il faut que mu dégelé DMC bi. alignement indemnité de logement bi l'État état du Sénégal nanguwul ubbi ci ay négociations yu sérieuses xam leen système bi dina toujours di perturbé wu